su ma baat ci kaw Moussa Diop sàcc la dama bëgg mu enregistré lu ma wax mu porté plainte Moussa Diop sàcc la liggéeykat yu nekk Dakar Dem Dikk dama bëgg ñu xam ne ni seen directeur général sàcc la et il n'a qu'à porter plainte man duma franchement xam nga ku nga xam ne da ngay wax lu ngay wax ci président de la République c'est pas le directeur de Dakar Dem Dikk là je reviens à ce que j'ai dit c'est un vulgaire menteur et un voleur Dakar Dem Dikk n'a jamais vendu 2000 mètres carrés à l'APR musul am c'est faux l'APR n'a jamais décaissé un milliard c'est faux en tant que administrateur de cette commune et premier magistrat de cette commune wax naa ko nee naa man je suis magistrat de l'ordre administratif ça veut am na lu ma yoon may ci ay sañ-sañ comme am na lu yoon tamit may ay sañ-sañ ñu ñuy woy des magistrats de l'ordre judiciaire ay procureur ay juge d'instruction et cetera mais naka la mën a toog suma biir commune kenn nommé wu ma dañ ma fal ma gis benn transaction de un milliard hors vue notaire may noppi mais où se trouve la CENTIF gis nga gor boo tuumal du ci teg baat de saisir le tribunal Moussa Diop est un menteur et un voleur et il n'a qu'à porter plainte nag ma xamal ay mbokkam que kii sàcc la ak fenkat la. mais li mu wax ci 2000 mètres carrés yi nga xamante ne nii jaay na. day fen société bi wax na lu leer nee na société dafa am ay problème mu jaay ko te am na ay traçabilité. Ah, dama bëgg Sénégalais yi déglu ma lii mooy état financier Dakar Dem Dikk bu 2017. mi ngi nii caméra bi mën na ko zoomer mi ngi nii. ngeen zoomé ko état financier 2017 du ngeen gis fenn ci état financier yooyu un milliard u APR bii mooy état financier wu 2018 Dakar Dem Dikk amul fenn fu ngeen di gis le milliard de la l'APR amul bi mooy état financier bu 2019 amul fenn fu ngeen di gis le milliard de l'APR wante ñoom jaay nañu ku ñuy woy Diamond Bank